jullig jot noddu kàttan nu guddig jot jullig jot mhm. noddu foo ñeme mhm. yaa ngi dégg mhm. koor kàttan uh-huh. est-ce que yaa ngi may kàttan jullig jot noddu foo ñeme sama goroo ko daan wax sama bopp ma la gënal du bañ naa la sëy bi dañ koy boole muy ñaar ñun ñaar ñu yëgante di ko dund ma jox la cër ndax góor góor ji guddi mbaat day mel ni xarum eh, yar non tamit quand même ah. toi xew fekk ma ci lii. Eh. xam la yem. Eh, joo ci fierté sénégalaise ah. waaw de toi est-ce que tu es fier de de toi. <laughs> fier de sénégalais. léegi mën la. yaa ngi dégg. Eh, bi sifflé ko ba. bu ko lii mënoo ma maalaat da ngay bàyyi ba wax nga soog maa jox ma soog laa feel wax. Uh-huh. yaa ngi dégg joo. Uh-huh. dañoo boole lu ñu neex ak su la tooñee